situation kër gi yéen yàgg ngeen ko suivre mais tey day le sentiment le mieux partagé est un sentiment de déception sentiment de déshonneur ñëpp xam nañ ni chemin de fer de tout temps ñoo doon gàddu salaire u yeneen entreprise entreprise bu doon dox la tey pour votre information sunu doom yi jàngi wunu tey pour votre information tey mooy premier jour de l'an ci atu musulman cere amul ginaar amul yàpp amul sunu soxna yi fii mu nekk ñoom ñépp ñu ngi seen kër jaaxle te nag lépp lu ñu ko teg nit buy dund comme ñun te pourtant nit ñooñu dey doo demee seen kër dara manqué fa lii yëpp nag duñu dellu ginnaaw waxoon nañ ko jàngoo tari nag amul fenn chemin de fer mënuñu ko defar yàgg nañ ko wax sans ñun cheminots yi teg nañ ay euh, pan daanu tegati daanu tey nag teg nañ nit ñi gën a loru te lépp waxoon nañ ko secrétaire d'État mi bëgg politiser kër gi waroon boole partenaires sociaux yi mu wut ay nitam teg tey day du doon góor dëgg dëgg dëgg dëgg ah defe naa du lekk cere tey de du fekkoon li ko Macky Sall yaakaare ni moom la war a def du fekkoon yaakaar boobu antu na tey de ay doomam waruñu woon dem école mais nag yàlla moo yore lépp ah ñun nag sës nañ sës nañ sës nañ tey doo xoolee Thiès léegi léegi Babacar Ndaw dafay dugg ni ma ani nit ñi ma ne ko ñun de gisatum kenn cheminot yi jaaxle nañ cheminot yi jommi nañ te nag ah kon ni duma la topp de fa nga jëm moo soriwul suba day lu mënti am buñ ne. waxuñu ko woon tey mbir maa ngi nii li ñu gën a naqari mooy sunu retraité yi at a ngi nii kenn fayu leen ñoom it ils sont malheureux mais tey Thiès ni nga xam ni cheminot yi noonu lañ doon xoolee tey tey cheminot boo sarax mu egg waaw gaa yi ngeen def ni nag loolu dinañ ko bàyyi déedéet duñ ko bàyyi de dinañ taxaw nag. beneen taxawaay dina fi am mais nag président ah man day sama xel a ngi tey si moom lay parce que nag doo jiitalee nit depuis plus de deux trois ans nga gis ni li muy def euh, yi muy teg yëpp euh, si musiba la jëm nga seetaan ko ah doone mbir moomu laalu la xanaa da ngay wax rek di sànni de mais nag tey nag wax nag dafa jot moo tax ñu woo nit ñi tey du ngeen xoolee chemin de fer kenn nekku fi te pourtant tey c'est pas journée fériée tey c'est journée travaillée mais nag yàgg nañ ko wax nit ñi fay liggéeyoo fayuñu la ñun loolu xamuñu loolu xamuñu loolu secrétaire d'État di wax di sànni rek di wax di sànni rek ah waay secrétaire d'État bi moo ñu sonal waay lu toll ni chemin de fer nag nga indi ko si fii ñu dem ba def le point fii ak déwén te dara dalu ko si ah. dooy jàpp ponkal bon nga jàpp ko parce que nag chemin de fer amuñu droit yàq ko chemin de fer amuñu droit aliéné ko tey nguur gi doo xoolee ni muy doxalee nga xam ni chemin de fer du seen priorité plus de 4000 cars nga jënd ko chemin de du seen priorité parce que ñëpp xam nañ chemin de fer liggéeyam mooy le transport des marchandise lourdes du fekkee tey ñoom ñu ngi def lépp te jubluwunu foofu mooy am nañ yeneen chemin mais nañu am courage décliner seen schéma du fekkee dañ ko bëgg tëj nañ ko wax du fekkee leneen la ñu def nañ ko wax mais en tout cas lépp lu ñu bëgg def ñun gis nañ ni lépp lépp schéma bu ne taxaw na leneen lu dul defar chemin de fer donc moo tax ñu ne woon dinañ woote dinañu woote pour nit ñi xam fa ñu tollu fan la fa ñu toll mooy ndox amatul ci boîte bi fa ñu toll mooy téléphone comme ni ko amatul si boîte bi fa ñu toll mooy saxaar bi nga xam ni mooy tax ñuy def amatul si boîte bi fa ñu toll mooy doo demee si opito yi ñu dàq la fa ñu toll mooy sunu sunu doom yi dàq nañ leen école fa ñu toll mooy lekkatunu naanatunu c'est ça la vérité waaw kuy wax nii dangay ngay def ne bi nga ñëwee toog nee nga émergence mooy sa politique te tey ñu xool ni yaa ngi def lépp en tout cas sauf une bonne politique ferroviaire te émergence mënul am te amuñu une bonne politique ferroviaire ñun yàgg nañ ko wax mais en tout cas situation bi mi ngi nii tey de dakaar à Kidira en ce qui concerne le Sénégal fii si biir atelier yi nit ñi jaxle na nit ñi dañoo jommi parce que yaakaaroon nañu fii mbir mi du fi nekk 7 milliards 500 si vous vous rappelez waxoon nañ ko moom la état bi waxoon waaye 7 milliards 500 c'est rien pour deux états fii mu ne ça fait plus de 9 mois 1 milliard en tout cas 200 et quelques moom la Sénégal génne donc situation bi di dem de mal en pis situation bi machine yi nuy dawal faf machine pour mu daw il faut li ñuy wax 6 mt lay daw pour mën a jël la maximum donc lu amee 4 mt dafay mel ni kuy daw ñu amputé la sa benn tànk moom mooy doo nekk ci sa plein régime doo xoolee depuis ñu jël mbir mi teg ko ci loxo état bi saxaar yi mënuñu passer 5 à 6 trains mais il y a problème mais loolu depuis plus de par mois depuis plus de 9 mois donc situation boobu moo taxoon ñu ne dinañ woote parce que ñun de tout temps ñun sax en tant que professionnel du rail xamoon nañ ni saxaar yi Transrail wala chemin de fer kenn du ko defaree noonu mais ñu wax convaincre ñu ne état du waxee ñun day tàccu rek la ñuy def fekk na leen fi waxoon nañ ni bu ñu toj sunu ndaal te amuñu ndaa yàgg nañ ko wax mais tey day duñ na am nañ raison mais tey day ñoom en tout cas. schéma yi nu teg schéma pour naxasal sunu kër la moo tax ñu ne tey ñu woote pour waxtaan ak presse bi wax wax ni ñoom fa ñu yaakaar ni ñoom foofu la ñu jëm du ñu jëm foofu ñoom li ñu yaakaar ni dañuy toog di leen seetaan duñ leen seetaan ñoom li ñu yaakaar ni dañuy toog ñu rey ñu duñ ko def de si kàttanu yàlla incha allah dinañ taxaw ni jodd face à ak ñoom la ñuy def nag di ngeen ko xam du jotee parce que nag bu njëkk ba sax dañu mais sikkim dafa lakkandoo cheminot yëpp a ñor xom comme je vous ai dit ci situation yi fi nekk yooyu daal la ñëwoon du ñu ñëwee partagé ko ak yéen ma bàyyi sunu camarades yi Cheikh Diène ak Daaxa ñu complété. mois bi la ñu jotagul. de tout temps doon nañ ñu fay comme ni ko waxee mais fay boo xam ni tamit fayu tàggate fay boo xam ni moom la ñuy wax salaire u taatu ne ngeen baal ma amul heure supplémentaire amul déplacement amul dara da koy def donc situation bi foofu la toll mais aujourd'hui en tout cas lii nag dañoo xam ni lii raam si ñag ba la jëm du ñu toogee yéen xam nga ni au delà du huit mënoon nañ banque suñu loxo mais comme chemin de fer ñun ñoo ko moom te ñun ay responsable lañ dañ ni nañu xool beneen procé procédé pour que nit ñi mën ñu dégg pour que aussi état bi mën a changer de d'épaule pour que mbir mi jëm kanam